jàmm gannaaw reportage bi nga xamante ne ñi di waa Seneweb def nañ ko fële ca Fambine mbir ya lu ca bees am na ca wéy leen di abonné ci seen seen YouTube TAS info ngir mën dem lépp loo xam jëm na ci ay information ñii nga xamante ni ñoo di population po Fambine gannaaw ba nga xamante ni ñii di waa Sénégal demal nañ fa am fa tukki bi neem ko ngir di xool la nga xamante ni moo fay xew ak calvaire gi nga xamante ni moom la population ba di dund dund rawatina xale yi ci bu ni jàngi di xuus ci biir ndox mi. ak lépp loo nga xam ne mi ngi leen fay dal ci ay loraanga ak it ay jafeñ-jafeñ yu nga xamante ni ma nga leen fay lor gannaaw ba nga xamante ni seen pont ba nga xamante ni moo doon relier seen dëkk ba. Euh, mujjee na woon euh, yàqatoo ba nga xamante ni daan nañ xuus ci biir ndox mi loola nag mel na ni am na yenn ci ay saafara yoo nga xamante ni am na ca ndaxte kii nga xam te ne moo di le président de la république son excellence monsieur Macky Sall euh, defal na leen lu rëy rëy ndaxte may na leen benn bateau boo xam xamante ne ak looco wala ak looco gaal looco boo xamante ne dina leen mën a jàllale ñoom population boobu ci lii nga xamante ne moo di seen dem ak seen dikk mën a ñoŋ mu di élèves yeek ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi doon def si wàllum transport kon mel na ni ni réseaux sociaux yi waxee rek ci ne gàcce ngalama ñi nga xamante ne ñoo di waa Seneweb ci li nga xamante ne def nañ ko sax